coow li faf na ni cobboy fii ci diwaanu Mbàkke gannaaw ba nga xamee ni xalif général de Mouride ñëw na ci stade bi seetlu ni mu jegee armée lu Mbusoobe yi ak fii Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul gane àdduna mu daal di jox ndigal maire bi mu toxal stade bi waaye dil bërëb bi jébbal ko Serigne Touba ci guddi gi ay nit sol seeni daal dem te stade ba yàq ko ba mu yàqu yaxeet ñoo ñi daal nëbbatuwunu làqatuwunu kenn ci ñoom di wax ne képp ku ko soxla xam nga fi nga koy fekk ndaxte moom moo jiite opération yi salaamaaleykum wa rahmatullah mbàkke sunu gox man Ibrahima Diop taalibe Serigne Touba nangu ndigal jëfe ndigal bàyyi tere man maa ñëw ci mbàkke sunu gox di leen xamal ni li ngeen topp debaa bi di ko wax man Ibrahima jóob ak samay ñoñ ñi nangu doon taalibe saadeex murit ànd nañ ci guddi gi dem jëfe ndigal li may bañ mu nekk loo xamante ni dañ naan ñan ñoo ko def ak ñan ñoo ko def ku bëgg a joxe information nañ dem police joxe information que ni Ibrahima Diop ak ñamu àndaloon ñoom ñoo ko def dawuma daayuma sëriñ bi joxe na ndigal def nañu wala defuñu man Ibrahima Diop bokk ci groupe Mbàkke sama gox ànd na maa ki nit dem nañu xaw ma nawetaan xaw ma kañ lañ koy def waaye ku leen joxoon estade ba fii ak weer mënuñu faa tëgg nawetaan te lii ma def nag maa ngi jël Mbàkke gépp témoin su fekkente nii administration bi am nañu lenn loo xamante ni nii dañ koy protéger ñi nga xamante ni dañuy xëtt ndigal man a Diop bu yeboo ñu ñëw ni ma ci kaso bi assumé naa samay responsabilité man Mbàkke sama gox ñun Mbàkke suñu gox man maa leen wax lii lii am na audio bi ku mu neex na ko partagé def nañ ko léegi ci guddi gi nii may euh, kii euh, ak yéen audio bi nii police nag maa ngi fa jëm naan day def constat police nag nañu xool ba xam moo yilif dëkk bi wala yilifu ko man Ibrahima Diop maa leen wax lii. police jot dafay saytu ñëw ci stade bi ngir nemmeeku yàqu-yàqu yi waa ODCAV ñoom di wax ne sëriñ bi bu leen waxoon nu dakkal seen yëngu-yëngu ci saa si leen koy def waaye ñu ngi jël baaraamu tuuma di ko joxoñ maire bi nu wax ne dafay yaas yaas yi ak it ministre yii fi jot a jaar doon leen dig ay digg yu tooy te dara sottiwu ci.